ci Tab Tab xibaar yi lu ciy gën a bokk na ci lu tukkee ci mbas mi juróomi téeméeri doomi aadama ak ñeent ñoo dolleeku ci lim gu ko fi jotaam lu tollook ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn dolleeku ci lim gu ñu jot a faj juróom-ñeenti doomi aadama dolleeku ci lim gu ci jot a ñàkk seen bakkan benn fan képp la def ay service ministère de la santé de l' action sociale jiital ci jëwrin ba Abdoulaye Diouf Sarr dal di réagir ci kàddu yu docteur Babacar Niang daal di yëkkati daal dinañuy sax xaatim plainte jëmale ko ci docteur. leen euh, mu feebar ba nekk ci anam bu euh, graw ab soxna bu ay atam toll si juróom benn fukk euh, dafa demoon ñàkku ji jëmale ci mbas mi waaye nag ca buntu hôpitalu Parcelles Assainies rek la dal di daanu ba doon ku ñàkk bakkanam danañu àddu ci mbirum Lobé Ndiaye gën leen xamal ka nga xamante ne ni moo ko faat di féticheur malien buy wuyoo si turub Hamidou Sidibé ay jaar-jaaram la mu jot a def ak lépp la xam si moom dinañ leen ko xamal ci les jotaayu moo am niki tey si talaata ji ci suba si euh, ca booru njuuma ñu bëri nag ñàkk nañu si seen bakkan waaye it am na ñu bëri ñi nga xamante ne ni daal dinañ siy jëlee ay gaañu gaañu taw yu bëri yuy wàcc ci yenn gox yu nekk ci suñu réew mi lee di Sénégal waxtu yu mujj yi daal dinay juróoy musiba ñaari doomu aadama sax ñàkk nañu seen bakkan gannaaw ba ab bâtiment mabbe seen kaw ca naba ji sivol nekkee ca diwaanu Matam dinañ leen ko gën a yaatalal ci kanam tuuti lay doon accident daa dinay am tamit niki démb ci diggante benn camion ak benn moto ci ay booru 12 heures ci rond point Cambérène ku ci ñàkk bakkanam nag moom mu ngi bokk ci sécurité Serigne Modou Kara moom moomee ab moto la yoroon bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya ñu ci jot taataana El Hadji Malick di ab gendarme bu nekkoon en service ca secrétariat au commandant de la gendarmerie nationale mi ngi ci kaso gi koy teg daan gannaaw rek ba mu de fonds ci turub Mohamed Kamba ñu daggoon loxoom wa ba grenade explosé ci loxoom ci ñaxtu ya fi amoon weeru mars ba la ñu génne ci diggante Ousmane sonk ak kii di Adji Sarr nga xamante ne ni juróon na fi ay jàppal bàyyi la dinañu addu nag ci xibaar bu amul bi nga xamante ne ni mi ngi wër réseaux sociaux yi eh, def ay waxtu ñu si xam le ni Ndeye Comba Coulibaly bu wiiri wiiri daa génn adduna actrice bi nag ba mu jotee bi le xibaar daal di def vidéo indi ay dal di euh, démentir euh, Baye Fall euh, di acteur ci wiiri wiiri moom it fësal na ab vidéo bu yàggul dara di biral feebaram bi nga xamante ne mi ngi koy woyaale ba tax rek mu def sa lépp la mu yoroon te teewul mu saafarawul moo géet daal dina say réagir jël loxoom dugal ca poche am def ca dinañ leen ko gën a yaatalal bu yembee ñu toftal ci xibaaru tàggat yaram tënk yaa ngoog nees tuuta gànnaaw bàkk bi ñu daal di koy yaatal ak euh, maa ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci xibaar yi mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mi di Sénégal tey ñaari junne ya doomi aadama ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk la ñu dal di testé ci mbas mi juróomi téeméer ak ñeent ñoo ci amee coronavirus bi si ñoom ñoo ñee ñeent fukk ak ñaar yi dañu leen a wàll ñaar ya jógee bitim réew dugg si si réew mi ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ya di ay cas communautaire maanaam ñi nga xamante ne xamuñu ana fan la ñu jëlee bi lee feebar ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn dolli fekk nañu ci lim gu ñu jot a faj euh, juróom benn fukki doomi aadama ak ñett ci ñu amee tawat wi sonn nañu ba ñu nga sauvetage am na sax euh, juróom ñeent yu si ñàkkaat seen bakkan ba ñu amee suñu kaa bu njëkk ci bile feebar di coronavirus bi euh, ba jamono jilee may wax ak yéen juróom benn fukki junney doomi aadama ak ñeent fukk ak ñeent ñoo fi amee coronavirus bi si ñoom ñooñee ñeent fukki junney doomi aadama ak juróom-ñett ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett faj nañ leen ba ñu wër junney doomi aadama ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent ñoo si ñàkk seen bakkan eh, fi mu ne nii fukki junne doomi aadama ak ñeent ak eh, ñaar téeméer ak juróom fukk ak benn ñoo fi amee coronavirus bi eh, ci suñu réew mii di Sénégal ñu leen si traité. benn fan képp la def ba ay service ministère de la santé de l' action sociale dal di réagir ci kàddu yu docteur Babacar Niang médecin chef suma assistance yëkkati ne rek matériel public yi dañu koy jaay structure sanitaire privé yi li mel nag tax na sax ba Abdoulaye Diouf Sarr ab plainte déposé ko ci table procureur euh, de la république ngir diffamation bu ko defee nag euh, médecin boobe dina xamle ana fa mu teg yooyu le kaddu mu yëkkati ña waxoon seen ay liggéeykat dañuy ñàkk ci covid 19 bi par force lu ko mooy rek ñu sanctionné leen ministre du travail daal dina leen di euh, dànkaafu wax leen ay dëggam ci ab xibaar nag ba ñu jot ni ki démb ci altine ji Samba si daal dinay xamal ñay bëgg ñàkkuloo par force seeni ay liggéeykat gisuñu ko fenn ndaxte amul benn disposition buy rendre obligatoire yi le ñàkk jëmale ci coronavirus bi. mu feebar ba nekk ci anam bu euh, graw ab soxna bu ay atam toll si juróom-benn fukk bu ñu njort ni dafa amee sax coronavirus bi la ay euh, jegeñaaleem yóbbu ca benn centre de santé bu nekk Parcelles Assainies euh, ca buntu hôpital ba nag la soxna sa ñàkkee bakkanam bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar soxna si daa amoon sax ay symptômes coronavirus bi ba nekkoon sax ci état bu graaw lool mu demoon ngir ñu teste ko ba noppi defal ko ay soins soxna Socé dée bi mayu ko sax mu am temps ba mu gisee weeg médecin bi gannaaw ba mu ñàkkee bakkanam ca buntu hôpital ba doon nag lu tiital yeneen malade ya fa nekkoon. aywa Madou ci mbirum euh, Lobe Ndiaye euh, gën leen a xamal ka ko faat di Amidou Sidibé comme ni ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi euh, gannaaw ba ñu faatee Lobe Ndiaye nag au commandant de la gendarmerie nationale daa dinay dajale moyen humain ak technique yëpp ngir leeral bile mbir ci noonu la ñu gisee ni Amidou Sidibé di ab féticheur malien moo faat Lobe Sidibé moomu yaay atam toll ci fanweer ak juróom-ñaar mi ngi ñëw Sénégal depuis atub 2009 moom moomee wax na sax naka la jëlee fëgg ci bopp ba lobee ba mu ñàkk bakkanam ba ñu ko njëkkee teewlu alxames eh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet eh, féticheur bi xamal na leen ni daal dëgg la ni Lobe Ndiaye ñëw na këram ngir sàkku ay ñaan eh, ci wàllum liggéeyam waaye ay 15 heures la fa jógee ko gannaaw loolu mu ne nag si la demee almadi ak Awa Sow di ko ko booleeg Lobe ci noonu la gendarme yi gisee ni daal ay kàddu si dibe ci horaire yamu leen jox dafa waroo ba ñu defee yeneen i promettre ne dina wax lépp eh, di lu mu deful ndaxte da prétendre daal ne si ab xeex bu am këram la Awa Sow faate Lobe Ndiaye ci noonu eh, mu ne mu daal di dimbale Awa Sow mu yóbbu ne wu ba Lobe Ndiaye bi nga xamante ne ni ñoo ngi ko fekk eh, bopp bi rek am ay dóor dóor yu bëri te gisuñu nag lenn lay firndeel ni da doon xeex ci yaramam Awa Sow ak Dahma Soumaré nag waat nañu ni ba ñu àndee Hamidou Sidibé ca Diamniadio ngoon bu meurtre ba amee ci ay booru 23h xamuñu rek néew moo nekkoon ci maalu oto bi gendarme yi nag dañoo am xel ñaar ci li mel ndaxte nee nañu même bu dee néew bi dañu ko defoon ci ab saak tànk càmmoñ wa mi ngi doon feeña enquêteurs yi dañoo jàpp sax ni kii di Hamidou Sidibé waxul lépp ci lu tax rek dëgg-dëgg mu faat kii di Lobé Ndiaye euh, ba ñu demee di si dëkkuwaayam Sidibé gendarme yi jëlee nañu fa ay deru mala ay téere ak yeneen i affaire laaj bu ñu samp nag moo di bu dee Sidibé rek teg euh, sacrifice la kii di euh, Lobe Ndiaye euh, lan la bëggoon a def ci moom exactement boobule laaj nag amaguñu tontom waaye njort nañ ne fii ak ay bés la ciy tukkee dinañu si am lan leeral féticheur malien bi di Amidou Sidibé ayatam toll si fan fanweer rek juróom-ñaar mu wax ne moo faat Lobe passeem doon na lu doy waax lool turub féticheur boobe faat Lobe limaale woon nañu ko ci benn mbirum association de malfaiteurs maanaam kuréelu defkatu ñaawteef séquestration avec acte de barbarie vol en réunion ak meurtre bu ñu sukkandikoo ci libération bu xëy bi biral bi le xibaar benn waay bu ñuy wax Abdou Kama la ñu kidnappé woon di koy torturé lu tollook ñeenti fan ci kër ga nga xamante ne ni euh, fa la féticheur malien bi dëkkoon victime bi nag dañu ko takkoon dóor ko dóor yu métti ba noppi wëccu ko foofa mu ñàkk deret gu bëri laata mu fay mujjee ñàkk bakkanam ba police di amal daal perquisition bi ci këram féticheur fay bagage am accident bu métti loolu am na niki tey si talaata ji ci suba si booru Ndioum ñu bari dak ñàkk nañu si seen bakkan ba accident bi amee juróom-ñeenti doomi aadama ñoo ca ñàkk seen bakkan ci saa si waaye bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi lim gi daal dina yokk ganna bu ma amee ñeneen ña ca ñàkkaat seen bakkan fi mu ne nii nag liim gu si faatu lépp ñu ngi ko xayma ci fukk ak benn doomi adama ndaxte yeneen juróom ya si jëlee woon ay gaañu gaañu yu garaaw dañoo mujjee ñàkk seen bakkan ci hôpital hôpital bu Ndioum accident bi nag ci fajar la am si diggante Ndioum ak Tareji ci booy yemook village bu geddee ci route nationale 2 bi benn car Ndiaga Ndiaye nag moo fa mbëkkanteek benn minibus wëññi nañu lu ëpp ñaar fukki doom doomi aadama ya ca jëlee ay gaañu gaañu ñoom ñooñee nag ñoo ngi leen évacué ca hôpital bu Ndioum bile choc gën na tiital askan wi ci problème accident yu bëri yuy jël ay bakkan yu dul jeex daanaka bés bu yàlla sàkk ci suñu réew mi lee di Sénégal taw yu bëri yu wàcc ci yenn gox yu si réew mi waxtu yu mujj yilee jur na ay musiba ñaari doomi Adama ñoo ñàkk seen bakkan gannaaw ba ab bâtiment mabbe ca seen kaw ca rek naba ji sivol nekkee ca diwaanu Matam bu ñu sukkandikoo ci RFM kenn ci victime yi ay atam toll si fukk ak ñett ci saa si la ñàkk bakkanam keneen kii di frère ministre de la microfinance et de l'économie sociale solidaire di Zahra Iyane Thiam ba ñu koy évacuer la ñàkk bakkanam néew yi nag wuraso gi la ñu leen yóbbu gannaaw ña si ñàkk seen bakkan yàqu-yàqu yi tamit bari nañu lool ndaxte ay dëkkuwaay yu bëri rek ndox mi daal na leen i faagaagal Euh, beneen accident am euh, bile yoon euh, ni ki démb ci diggante benn camion ak benn moto ci ay booru midi ca rond cambre na passager moto ba nag di Fallou Badji daa ñàkk bakkanam ci saasi motocycliste bi di dal di si jëlee ay gaañu gaañu yu graaw évacué nañu ko sax kër docteur ñu accidenté def nañu fa waxtu yu bëri lool di xaarandi ña leen di wëllu ñu xaar nag ba xaddi benn auto particulier sax moom moo mujjee yóbbu néew ba Fallou mu dëkkoon Grand Dakar. Sarr fàllu ci sécurité Serigne Modou Kara yi la bokkoon ñu ngi koy jàll ak famille am ak yi jege ñaaleem yëpp te koy ñaanal yàlla xari ko ca aljana leneen juróom fukki prisonniers yu nekk ca maison d'arrêt de correction bu Rebeuss dañoo tàmbalee grève xiifal bu ñu sukkandikoo ci FRAPP ak famille yu détenu yi ci ab communiqué bu ñu biral ni kiy démb ci altine bi yemoo woon nag ñaari fan ci weeru wut ñay grève nag la ñuy sàkku mooy ñu dakkal teewaate yu yàgg yi wàññi bi ak marchandise ca boutique yu nekk rëbës te bàyyi dóore ya ñu tegul fenn euh, ci noonu frappe ak famille yu détenu yi dañuy euh, sàkku ci directeur de l'administration pénitentiaire euh, ngir ñu xoolaat njëg ya ñuy pratiquer ca rëbës ak ci yeneen fanweer ak juróom-benn établissement pénitentiaire yu ci réew mi di sàkku it ci jëwriñ bu yor wàllum yoon ngir mu atte way la mu libéré ñañu tëj bu yàgg lool ci kaso yi te atte guñu leen ci nag jamono yo mi nga xamante détenu yi dañuy sàkku ngir ñu xoolaat njëg ya nekk foofee ca diwaanu rëbës ci seen boutique ya ak rek fanweer ak juróom-ñaari prison yu si réew mi El Hadji Malick di ab gendarme bu nekk en service ca secrétariat au commandant de la gendarmerie nationale mi ngi ci kaso gi moom nag daa profité ci situation agent wu de la gendarmerie nationale Ka moo ñu dagg benn loxoom wa ci jàppante fi amoon weeru mars fukki fan benn nag ci weeru sulet la gendarme bi di Hadji Malick téléchargé application Kopar Express ngir créer benn cagnotte ci turub adjudant bi Mohamed Ka mu grenade ba explosé woon ci loxoom bi ci manifestation ya fi amoon weeru mars ci mbirum Adji Sarr beeg Ousmane Sonko bi gendarme bi di El Hadji Malick nag ñaari at la ñu gàcc ci ndoddam ngir rek la mu lancé collecte de fonds ci turub Mohamed Ka te moom moomee di Mohamed yëggul tinnu la ñu àddu jëmale quotidien nee na def nay waxtu ba xibaar bu amul di wëree réseaux sociaux yi ñu si xam le ni Ndeye Comba Coulibaly bu wiiri wiiri daa génn àdduna ba mu jotee rumeur bi nag la leen démentir ci ab vidéo bu mu def daal di si xam le ni mi ngi weddi rumeur ya ñuy waxee ni dafa génn àdduna gannaaw loolu mu ne nag comme nañu ko gisee mi ngi dund te mi ngi si jàmm bu baaxa a baax te yaakaar na ni dina gudd fan laata muy naan mi ngi fi ak famille am ak borom këram te yaakaar yu euh, bëree comme ni ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi Baye Fall wiiri wiiri daal dinay woote ba si ab janook taskatu xabaar yi euh, biral la euh, mi ngi wuyaaleeg moom def na ay at ba si ba muy def ay tournage ci wiiri wiiri ci noonu nii nag mu la mu amoon lépp daal na ko fajoo ko te amul loxoom di ñaan ndimbal ci bonne volonté yi ndimbal yooyee nag euh, tàmbale naa jib ndaxte kii di moo euh, di doomu Sénégal bu nekk ca réewum États-Unis daal dinay làmb poche def sa euh, génnee na koppar wu takk lool dal di dimbale kii di Baye Fall bu wiiri wiiri waaye nag kii di moo gétt nanguwula wax rek montant bi maanaam somme bu mu jox ki nga xamante ne nii moo di Baye Fall ba tey rek ci mbirum bay Fall wiiri wiiri gannaaw ba ko moo git jëlee en charge bay Fall bëggul rek ñàggasoo ak ki nga xamante ne ni moo di Sanex ci ab direct bu mu def ak nag lay jéggalu comédien bii di Sanex ngir kàddu yamu yëkkati woon jëmale ci moom ak troupe Soleil Levant lépp Baye Fall ne ne nag feebaram bi di gumba gi nga xamante ni da koo teg stress moo tax rek mënuta nëbb nakkat bu mu am ak ay émotion wam nee na nag si diggante moom ak Sanex relation wu mag ak rakk la la tax na daal euh, foofu rek ñu comprendre ko nee na même sax moom ak soxnaam yombul la ndaxte fi mu ne nii rek feebar bi moo tax mu jaxasoo moo tax mu stressé moo tax rek euh, buy wax sax du rendre compte ci lu bëri. tàggat yaram Samba Sarr daal dinañu koy denc ci armeeru Pikine mbooloo mu takku lool gunge woon ko ci këram gu mujj résultat autopsie président wu district football bu Pikine bii di Samba Sarr amu ñàkk bakkanam samedi ci benn jàppante ca complexe Léopold Sédar Senghor bu Pikine daal dinañu koy xam euh, bu ñu sukkandikoo ci rapport médical bu ñu defee hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff ab défaillance cardio-respiratoire ci ab état cardiopathie ischémique euh, compliquée d'infarctus ak ci contexte tension émotionnelle euh, moo faat Samba Sarr ci gàttal daal mort naturelle maaddu ci wàllum élection bi ca fédération sénégalaise de football ak ñaari concurrent ya ñuy départager samedi buy ñëw 88 électeurs a tànn ci diggante Augustin Senghor ak Madi Touré Mbaye Diouf Dia ak Sayer yu war a désigner waa ila rek de la fédération sénégalaise de football ay membre collège électoral bi la bokk ci ay mandataire club professionnel yi ay représentant club amateur yi ay ligue régionale football féminin bi football spécifique ay membre représentant association national des arbitres ak association bu ëmb médecin yu sport délégué yooyee nag ñoo ngi toll si ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett maanaam 388 ci kàllaamay nasaraan war a yemook 430 maanaam ñeenti téeméer ak fanweeri voix bu ñu sukkandikoo ci ab source bu jege commission électorale bi mbirum Sadio Mané lay ndar keppe yi le jotaayu xibaar moom nag dund bu calme lay dund wuuteeg ñu bëri ci ay naataangoom amul benn biling biling suñu international sénégalais bu inauguré bu yàggul dara benn hôpital ca village am mi ngi yor collection gu auto yu jet setter yu bëri rek di rev boo xoolee collection auto superstar sénégalaise bi rek da ngay dugg immédiatement ci monde bu naat lool ak vitesse bu rëy donte mënuñoo wëññi auto mu yor yëpp waaye nag am na ñeent ya ñu si ràññee yoo xamante ne nii ñoo ngi leen xayma ci 594 millions 385 mille francs CFA bokk ci benn Range Rover benn Audi RS7 euh, Bentley euh, Continental GT ak Mercedes G63 AMG 2019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 votre Orange Money jërëjëf tap tap 5